le complément du dossier de Mme Aminata Touré. Comme vous le savez, euh, le premier passage n'a pas été le bon. On nous avait demandé de régulariser des, des parrainages, ce que nous avons fait en amenant des fiches et encore une fois une clé pour euh, compléter le dossier de Mme Aminata Touré. Nous devions compléter 19 800 parrainages, ce que nous avons fait, parce que le problème, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas les parrainages. le problème. Il y a une autre j'ai dit que nous n'avons pas un problème de parrainage. Le problème que nous avons, c'est le contrôle qui se fait ici au niveau du Conseil constitutionnel, avec les doublons et les régies que nous avons déjà dénoncés. Euh, nous avons encore une fois de plus déposé un dossier béton et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Ouais. J'ai pas bien entendu. collectif. Oui. Oui. Uh-huh. Non, nous attendons gain de cause, parce que quand même, c'est des, des greffes qui ont, été, qui ont été notées et qui tiennent debout. Nous savons tous que le contrôle qui a été fait ici au niveau du Conseil constitutionnel laisse à désirer, avec euh, un nombre incalculable de doublons et des gens qui ont déjà qui ont voté en 2022 lors des législatives et qu'on déclare non identifiés dans le fichier électoral. Ça, c'est impossible. Vous avez vu le cas de Ben Diop qui a voté lors des législatives 2022 et à qui on a dit ici au Conseil que vous n'êtes pas dans le fichier électoral. Donc c'est pas... Non, non, non, c'est un dossier béton. Il y a un recours qui a été fait et qui sera déposé tout à l'heure. Il y a aussi une plainte, parce que quand même, c'est le travail de toute une équipe. C'est le travail de toute une équipe disséminée à travers le pays. Des techniciens qui ont sué pour quand même faire ce travail. Parce que les dossiers que nous amenons au Conseil, c'est le fruit d'un travail de milliers de personnes éparpillées à l'intérieur du pays. C'est le fruit d'un travail de techniciens qui n'ont pas dormi pendant des jours. Maintenant, si nous trouvons que nous avons pense que le minimum, c'est de faire recours aussi. Et si nous pensons, nous indexons certaines personnes, c'est le lieu de porter plainte contre ces personnes. a donné clé, la Non, non, c'est la clé que nous donne le Conseil constitutionnel. Et nous nous, ramenons la clé et nous la laissons ici. Par exemple, la clé que je vais amener ce matin, je l'ai laissée à l'intérieur du Conseil constitutionnel. L'autre fois, quand je suis venu, comme aujourd'hui, ils ont fait le contrôle, ils m'ont donné le nombre de, de, de que j'ai eu à Saint-Louis avec la même clé. Et quand je suis retourné pour le contrôle, ils m'ont dit à Saint-Louis, nous ne voyons pas Saint-Louis. C'est pourquoi je dis que euh, la politique là, c'est du sérieux. Ce que nous travaillons, nous voulons voir le fruit de notre travail. Mmh. Euh, le docteur Abdourahmane Diouf, candidat à l'élection présidentielle, avait introduit un recours. Mais de ce qu'on nous a dit ce matin, tous les candidats vont passer demain, mais quand même on respectera le même ordre de passage. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas accepté de faire un autre tirage. Vous savez, en tant que Babacar Ngom, moi, moi personnellement, je ne la connais pas. Je sais que je suis sur le terrain politique depuis des années, je ne la connais pas. Mais Madame Aminata Touré la connaît. Parce que quand même, euh, d'après Madame Aminata Touré qui me l'a dit et que je sais que c'est confirmé, Anta Babacar Ngom était dans le cabinet du directoire de campagne du, du candidat Macky Sall en 2012. Et ce cabinet était piloté par Madame Aminata Touré. Mais quand même, Moi, ce n'est pas, pas Anta Babakar Ngom qui passe ou qui ne passe pas. Qui... Non, non, non. C'est toute une manigance qui est orchestrée au niveau de, de, de, de, ce tirage, qui est orchestrée au niveau du contrôle, qui fait mal. La politique, comme je vous l'ai dit, c'est du sérieux. C'est un cursus, c'est un vécu. Donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain comme ça et quand même passer devant tout le monde sans qu'il n'y ait pas de suspicions. Mais quand même, moi, je la connais le directoire dans le cabinet di directoire du candidat Macky Sall en 2012 piloté par madame Aminata Touré. D'accord, merci. Sidi Bara Fall euh, euh, Touré. waaw li ñu jàpp mooy comme ni mu demee woon euh, ci premier dépôt bi ñëw nañ comme benn passé dañ ñu wax nañu ñu dañoo am ay parrainage yu ñu waroon complété. Euh, ñu décrier ko ci moomam parce que comme ni ngeen ko xame euh, clé bi ma indi tey ñoom ñoo ma ko jox clé ba ma indi woon keroog ñoom ñoo ma ko jox biñ ma ko joxee dama ko fi bàyyi bi ma ko indee bi ñuy contrôler clé bi dañ maa wax jox ma nombre bi ma am à saint comme tey joxaat nañ ma nombre bi ma am à saint jox ma nombre bi ma am à jox ma nombre bi ma am à Kaolack keroog nag bi ma dellusee pour ñu contrôler dañ ne ma Saint-Louis nekku ci te ñoom ñoo ma joxoon nombre bi donc tey nee nañ ñu amoon nañ dix mille yoo xamante ni non inscrits ma leen di wax ni leen lay li ñu naan leen non inscrits y a des gens yoo xamante ni élection deux mille vingt deux yi passé législative dañu dem voté ji te après dañu leen wax ni leen fichier bi nekkuñu c'est le cas du candidat benn Diop. nga xamante ni voté na deux mille vingt deux ñun ñii aussi am nañ dans notre dans des gens qui en deux mille vingt deux ñun ñu la nekkuloo ci fichier bi defaraat nañ nag suñu ay fiche clé bi ñu joxoon aussi liggéeyaat nañ ci liggéey bi ñu ci war a liggéey. mais li may wax mooy fiche yi ñuy indi fii ak clé yi ñuy indi fii du liggéeyu caaxaan man ngaa yor se fiche yor benn clé mais c'est des milliers des milliers de personnes ñoom ñoo ne tas ci biir Sénégal di xëy suba ba ngoon de technicien di fanaan ci devant les ordinateurs pour liggéey loolu ñu def ko ci ay caisse def ko ci clé indil leen ko liggéey boobu nag bu ñu koy saytu dafa war a ànd ñàq bi ñooñu ñàq dañ ko war a reconnaître ba buñ la dee wax dara mu wax loo xam ne parce que ñu ñëpp ay ay ay ay ay politique lañu mais avant tout aussi xam nañ luy dëgg ak lu jaar yoon ak lu jaar yoon ku ñu fi wax lu jaar yoon doo dégg kàddu moo tax tey yàlla collectif bu war a ñëw fii déposer un recours parce que c'est le droit ngeen war a mottali. ñun war nañu mottali dix neuf euh, dix neuf euh, waaw ngeen déposer li ñu ma wax léegi te muy lu ñu firndeel ci kayit. mooy ni comme ni ngeen ko xamee docteur Abdourahmane Diouf candidat à l' élection présidentielle dugaloon na recours pour wax ni passage bi dañ ordre de passage bi dañ ko retiré waat mais ci ni ma comprendre tey parce que jox nañu convocation candidat yëpp la ñu convoqué suba ñii le matin ñii dans l' après midi parce que ni ñu ko jàppee ñoom mooy dans la journée de demain incha allah rabi candidat yëpp dinañ jàll ci contrôle de parrainage. merci, merci